monsieur le ministre nga wax nu ci wolof tey jii ndaje bi ngeen am tey jii nan la tëddee ci lu jëm ci ñu toftalaat randalaat tuuti li nga xam ne moo di date élection yi. waaw euh, jërëjëf monsieur Sow li may njëkk a leeral mooy ci wàllu élection yi euh, bi nga xamante ni son son excellence monsieur le président de la république Macky Sall fal laat nañ ko 2019 dafa woote waxtaan woote waxtaan bi mu woote ñi nga xamante ni ñëpp moom la seqal langue politique bi. bi ñu ñëwee am ay poñ yoo xamante ni dañ ko jël war nañ ci déggoo jël ko ci code électoral bi ñu def ko looloo waraloon waxtaan wi tàmbali bi mu tàmbalee ñenn ci parti yi nii il faut que avant ñuy demati ci ay élection ñu auditer fichier bi ba pare càmbar processus électoral bi loolu am nu mu waroon tëddee ci wàllu app ak ñi ko nar a def ñi ko waroon ñi ko war a def ay experts internationaux lañu app bi ñu ko war a defee tamit dafay jël temps day jël ñetti weer ba jàpp ñeenti weer bi pandémie bi ñëwee commission politique bi nga xamante ni opposition bi mu ngi ci biir non aligné yi mi ngi ci biir majorité mi ngi ci biir CNRA mi ngi ci biir Sénat mi ngi ci biir euh, seen liggéey ñu dakkal ko ndax feebar bi léegi bi nga xamante ni am na amélioration bu am ci situation feebar bi ba ñu reprendre ak seen ay travaux experts yi fi mu ne tànn nañ leen ba li jëm ci wàllu audit bi tàmbali nañ ko le premier février bi weesu lii nga xamante ne moo jëm ci évaluation processus électoral bi tàmbali nañ ko tey léegi nag loolu dafa am app bu mu war a jël muy ñetti weer ba ñeenti weer ginnaaw loolu la ñu waxoon ni moom la ñu war a def bala ñuy dem ci yeneen élection jotul woon am ndax feebar bi indi ko moo taxoon ñu ñëwaat fii tey ngir demandé waat ñu daqaat élection yi le temps que loolu ñu def ko. lu jëm ci wàllu mandat bi ñoom dañuy wéyal seen liggéey euh, walla. waaw loolu it euh, lu am la parce que mandat bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jotoon a euh, nekk avant même 2019 élection yi waroon ñu waroon tenir décembre 2019 loi bi ñu njëkkoon voté fii dañu prolonger seen mandat mais tey tamit bi ñu ñëwee ci loi bi nga xamante ni voté nañ ko am na ci benn article boo xam ni tamit day wax ni fii léegi ñuy organiser au plus tard fin janvier. élection territoriales yi dañuy dañuy nekkandi en place léegi nag bu ñu defee yeneen élection ba ñi nga xamante ni ñoom lañ fal ñëw remplacer leen su boobaa si la seen mandat di jeex. liggéey bi del lu wéy ci yan tànk ak ci yan bànqaas. waaw bon commission politique bi ñoom ñi ngi euh, démb damay rafetlu d'abord euh, pour tontu sa laaj damay rafetlu acteur société civile bi parce que bi ñu gisee ñoom ñi ngi ci biir bi ñu gisee ñi ngi ci biir commission politique bi. ñoom bi ñu gisee ni réeroo am na ci période bi ñu war a organiser élection yi ñoom ñëpp parti yëpp d' accord nañ ni report bi mënta ñàkk ñu dàq élection yi mënta ñàkk ñëpp d' accord nañ ci mais li ñu d' accord loon mooy kañ lañ ko war a def opposition bi ni nañ ko def gën gaa sori décembre at at bi ñu nekk muy 2021 majorité nii ndax ñoom dañu laaj tamit euh, administration bi lan moo mën a nekk ak lu mënta nekk ñu wax leen ni xaj na fii ba février mooy li gën a yanu maanaam léegi bi ñu waxtaanee gis ni ñaari parti yi d'accord ci loolu société civile jën sol jug sol seen dàll ñëw wax ak opposition wax ak majorité ni léegi ginnaaw li leen séparé li leen teqal li dox seen diggante décembre la ak février ñii dañ ne décembre muy opposition bi majorité nii février léegi société civile ni kon kaa leen ñu bokk waxtaan ngeen xool lan moo ci mën a nekk ngir ñu dajale leen kiy def benn pari euh, vers janvier kii jógee février aussi ñëw vers janvier kon loolu proposition la bu ñuy rafetlu moo tax bi ko société civile doxee wax kook parti ñun ñu ni ubbeeku boobu dañ koy am ngir dugal amendement loolu moo waral euh, donc euh, amendement bi ñu dugal ko.